Thank you. jàpp ni ay nit bu ngeen àndee da ngeen ànd àndu nawle te gii Marius Sagna euh, sénégalais yi la dem di xeexal yi moo ko taxoon bàyyi liggéeyam bàyyi léppam si si fàttali gii Marius Sagna agent la comme agent de l'État la di am di fayeeku di yor këram euh, def sacrifice bàyyi loolu yépp ñëw di xeexal sénégalais yi kon bu ko kenn bu mu gën a gore kenn moo taxoon ñun tam duñu ndongo Guy Marius Sagna gën ñu góor ñu dem di négocier lu mu mënti doon ci ginnaawam dañu bëggoon bu ñu dem di seet njiitu réew mi ñu ànd ak moom mu bokk ci délégation bi ñu dem gis ko loolu daal moo doon suñu taxawaay ci point boobu. d'accord forcing euh, forcing bi ngeen def si di seen diggante yéen ak euh, état bu Sénégal euh, bañ a wax sax kii di Macky Sall est-ce que tamit du dem ba biaiser seen lutte ndaxte yéen wàllum xeexum yokkuteef courant bi moo leen tax a jóg bien vrai que kii di Guy Marius Sagna bokk na si ñu déclenché bii de bii li lutte est-ce que nekkul tamit da ngeen di jël kii di Guy Marius Sagna teg ko si kaw intérêt national. waaw ñun de bu ñu sañoon ñun euh, Guy mari sañaa yàlla dafa def ni comme ni nga ko waxee léegi moom moo tàmbali yëf yi moom moo nga xamante ni moo dem di wax ak président de la république ndax bi mu xoolee gisul kenn ku mu waxal premier ministre amu fi dara amatu fi ñu gàdd suñu lettre bëggoon dem ba pale jox ko njiitu réew mi kat ni ka courant bi cher na ñu bëggoon nga wut si saafara bi ñu demee ba foofu nag conditions yi ñëpp ñi demoon ak euh, man mii di wax ak yow mouvement bi bokk di Sénégal notre priorité. coordonnateur bi di Pape Abdoulaye Touré keroog mook Guy Marius Sagna àndoon nañ dem foofu waaye bu ñu xoolee vidéo yi ak ñoom ñi demoon tam ni ñu wax ak ñun ñoom ñëpp kenn ku nekk il n'était pas violent yor nu arme yoru nu dara dañ dox nang pacifiquement bi nuy dem ndax buntu pale booy seet nit ñaa ngi fay jaar di doxantu di doxi seen soxla di oto yaa ngi fay traversé lépp a ngi fay traversé boo xoolee charge yi ñu teg si kawam dañ ni ka dafa doon songu ay euh, way way way way garde corps ak yooyu yëpp yooyu ñu teg si kawam nag acharnement la si kaw gii Marius Sagna ndax mënoo ànd ak sa ay nawle nekk ngeen nekk juróom-ñeent nit ñu jàpp leen ñu bàyyi ñëpp ñëpp ba mu des yow kon ñëpp xamoon na ni kii mooy ki nga xamante ni moo leen intéressé woon te bi ñu ko téyee ñëpp gis nañ ni acharnement si kaw Guy Marius saña na ñun nag li ñuy la ñaan mooy libération wu ñëpp ba ñu tàmbalee ba léegi libération wu détenu yi nañ doon wax ñu ngi bàyyi boo gisee pression université jug na ñu ni xaaral ñu bàyyi ñii. pression professeurs yi ak étudiants yi ñu bàyyi quatre quatre étudiants ak professeur Babacar Diop mi si nekkoon ñu demaat ba si biir ñu bàyyi euh, Ousmane Sarr ak Leuze man nekkoon ak Guy Marius Sagna jël jël Guy Marius Marius Sagna ni terroriste la daal di koy dëxañ si cellule boo xamante ni doy na waaru te kenn àtteew ka foo xamante ni ay terroriste nañ fay dugal ñu jël ko dugal ko fa te moom da doon kaas. rek ngir courant bi wàññeeku. d'accord euh, monsieur Ndoye euh, man sama xalaat bu gàtt dama jàpp ne pour seen lutte bi gën a efficace mhm. est-ce que gënu boo boo leen amoon tuuti ruse doo leen euh, nangu daje kii di président Macky Sall mhm. waxtaanee ci wàllum yokkutef électricité bi mhm. en même temps ngeen négocier wàllum libération kii di Guy Marius Sagna. waaw wax nga dëgg waaye ñun de ñun ci combat bi nga xam nañ ci taxaw di wàllu électricité bi. ñun suñu borom dafa def ñu nekk ci benn collectif boo xamante ni euh, mbooloo mu takkoo ngi si ay borom xam-xam ñu ngi si ay expert ñu ngi ci liggéey liggéey bu rëy euh, bu ma juumul si fan yii di ñëw dinañu présenter euh, mémorandum journalistes yi dinañ leen ko jox présenter ko nguur gi présenter ko institution yi présenter ko sénégalais yi wan leen ñun kat jugunu rek pour xeex ngir xeex dañu jóg ngir wut solution te ànd nañu ak euh, d'accord nañu wan gouvernement bi ak ñoom i seen expert bu ñu bëggee ñu wan leen ne ñun am na nañu solution te lii ak lii jàpp nañu bu ñu ko defee courant bii nga xam te yokk nañ ko dina wàññeeku ba Sénégalais yi kenn ku nekk di nga si gis sa bopp. d'accord kon yow man su ma la déggee sànq ba tey say explication kon mm-hmm. yéen da ngeen naa scotché fi ngeen taxaw. Mm-hmm. Euh, doo leen uyu ju benn yoon président de la de la république euh, mm-hmm. sans Guy Marius Sagna naam sa fekkee euh, yokkuteef courant bi ngeen di wéy di xeex ba tey. waaw léegi daal ñun fi ñu toll nii ñun niw nu la ñuy taxaw rek parce que mooy li ma la expliqué sànq. parce que ku bëgg jàmm doo dem di wut ay solution li gën difficile mooy parce que ñun li ñuy demandé naa libération Guy Marius Sagna moo gën mooy li gën a yomb ci li ñuy demandé ndax ñun teg nañu mémorandum teg nañu ay solution euh, defar nañu ay euh, comment dirais-je tey defar nañu ay euh, plan yoo xamante ni dina permettre état yi bu ko appliqué dinañu gis ni courant bi nga xam dañ koy yokk tamit nga xam te ne teguwul si yoon bëgg wan sénégal yi ni leen courant bi teguwul si yoon fii ak fii la nguur gi jóge ba fii mu toll si ñun ni ak ay chiffres yoo xamante ni mooy prouver li ñuy wax ci seeni déclaration bu boobaa ñun sax nañuy basé wu pour wan sénégalais yi ni leen kat ñoom noonu woon lii te lii nu waxoon lii ak lii amu si kon nag yokk gi tegu teguñu ko fenn loolu moo tax ñun ñu àndandoo daal di defar mémorandum ñun nous allons nous avons fait mënoon nañ fi nekk di barricade wu nekk si tali bi di woote guddeeg bëccëg naan kaay leen nu xeex waaye dañu dem nous allons plus responsable donte suñu xeex yi sax gisuñu si euh, lorunu gaañunu bii nga xam ne moo si mujj nga xam bi ñu taxawee ay étudiants APR ñoo ñoo ñu ngi doon provoqué waaye wuyuwunu ngir bëgg jàmm d' accord euh, si libération kii di Guy Marius dafa mel ni euh, nekk na pomme de discorde. Mhm. Euh, ak euh, ñenn parti yi nga xam ne dañoo féete woon si yéen dafa mel ni fu mu toll nii mouvement bi euh, coupé wu na en deux ñeneen ñi sax tuddee seen bopp ñoo lonk authentique mu nekk mbir boo xam ne dama jàpp ne mouvement yëpp additionné. Mhm. moo gën soustraire. est-ce que le fait euh, ngeen diviser wu loolu du fragiliser aussi euh, seen mouvement bi. waaw man de dama jàpp ni division sax amu fi. Hmm, lan moo fi am. waaw division amu fi parce que li fi am mooy dañu nekk benn foule. Hmm. àndandoo bokk li ñuy mbëbët. bi nga xamee ni question Alioune dem seeti njiitu réew mi moo jug am na groupe bu ngeen di wax ni moom nee na dafa bëgg waxtaan ak njiitu réew mi waaye ñoom de bu fekkente ni wàññi courant bi rek moo tax ñuy wax ah lool la si loolu la ñu bëgg ndax booy seet boobu ba léegi mooy suñu wax. kon ñu ñëpp ñoo bokk li ñu bëgg ñoo bokk fi ñu jëm kon nag gisuma ci division bis bu ñu wàññee courant bi ñoom daan si gis seen bopp ñooy ngeen tuddee ndëndëm ñun daan si gis suñu bopp Sénégal yi dinañ ci gis seen bopp kon nag da ngaa jàpp ne ñoom euh, mbirum courant bi soxalu leen am na beneen prox ndoll bu ñu bëgg loolu moo tax ñu bëgg a gis kii di président Macky Sall. waaw parce que ñun dañu jàpp nii bu fekkente ne da nga ànd ak sa nawle di liggéey. Mm-hmm. Euh, ñu xëy ni kat yi ñu teg nii par exemple ku mel na Guy Marius saña ndax ñun dañu gëm ni ñun Guy Marius saña boo gisee ñu def ko suñu combat lu ñu wax suba ba jant so daañ ko si dugal parce que war ñu gën a gore kon bu ñu gisee groupe gu jug bu fekkente ne am na groupe gu jug ni dafa dem waxtaan waxtaani ak njiitu réew mi sans Guy Marius saña ñun kat wax dëgg yàlla loolu mënuñu si ànd ñun collectif ñoo lànk te Sénégalais yi ñu ngi nuy déglu bu boobaa ñoom dinañu dinañu euh, leeral lépp dinañu àtte waaw bu fekkee wàññi courant bi rek la nag ñun ñëpp xam na ni ñëpp loolu moo tax a jug te képp koo xamante ni fexe nga ba courant bi wàññeeku kat collectif ñoo lànkat si loolu lay yëngatu kon ñoo bokk combat. d'accord euh, ñoom ñoom la ñu tuddee seen bopp euh, ñoo lànk authentique ñoom dañoo jàpp ne yéen mhm. euh, combat bi da ngeen ko biaisé parce que ñoom ñu leen di taxé sax de politiciens déguisés parce que ñoo ngeen neneen ba ngeen commencé di wër politiciens yeeg yooyu noonu ñoom loo loolu leen wax gannaaw ba ba ngeen demee sax seeti kii di metti Abdoulaye Wade nekk na mbir boo xam ne gën ñoom sax ëlëm na seen xel mm-hmm. mais tamit na ëlëm na xel yi ñu bëri ci sénégalais yi parce que ñu ëpp ñu bokk ci seen mouvement bi euh, mun nañoo jàpp ne euh, ñoo fi sax xeexoon xeex gu métti kii di euh, njiitum réew bu fi nekkoon di maître Abdoulaye Wade loolu est-ce que tamit am na tamit cohérence ci seen démarche waaw xam nga booy seet mbir mi dafa dafa dafa simple maanaam li ma jàpp mooy benn train la rek buy dox booy xool li fi jëlee Ablaye Wade benn train la boo xam dafa nekkoon si yoonam kii fi nekk njiitu réew tey àndoon na ñu dugg ci biir train bi Ablaye Wade moo wàccoon train bi ñu ñu ñu ñu ñu ñu jàmmaarloog moom ba jëlee ko fi kii nekk tey njiitu réew mi aussi moom it wàcc na train bi Ablaye Wade ñëw na duggaat ci train bi train bi kenn moomu ko. dañuy teg si yoon rek Sénégal yi nga xam képp koo xamante ne bëgg nga jubal bëgg nga tegu si yoon boo ñëwee ñu ànd yow dem liggéey